ausu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki àddina gannaaw buñ sante yàlla julli ci seydina muhammad seen mbokk al oustaz Cheikh Tidiane Gueye moo fi ànd ak Essa Mbaye delsi waat fii ci Sahel Network TV ci Independence Drive Banjul si wattal leen seen waxtaanu koor ah ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm suñuy waajur di gërëm suñuy sëriñ waaye nag di nuyu borom kër gi abu alaaji aboubacar li ak soxnaam soxna umi baccili ñoom ñi ñu yaatal ba boole ñu ci yiw gi nga xam ne nii moom la ñu jox ci biir weeri koor wi te nag ñu ngi ñëw ci ñaareelu xaaj boo xam ne nii ñu ngi doon waxtaan ngëneeli naafila ci biir weeri koor sëriñ seex fan yi paase rek demaloon nañu ba ci fukk ak juróom-ñaareeli fan ci weeri koor wi lan mooy njëriñi naafila ci biir weeri koor insha allahu rabbi xam naa dañ koy bàyyi rek gannaaw bu mu nuyooyee mu continuer ca fam emoon yaa ngi emoon ci fukkeeli bunta ak juróom-ñaar ci bunti naafila yi war a dem ci fukkeeli bunta ak juróom-ñetta fa tabaarakallaahu xanaa ñu bàyyi la rek nga nuyu askan wi dugg ci waxtaan wi tabaarakallaahu alhamdulillahi mujidil mawjudaat albasitil aradina bila muhinin kalla wala sarikaat النافس حكمه في كل الكائنات المنزع عن كل الظلم والجنايات وأكمل صلواته وأتم سلامات على خير عبيده من ماد وآت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk ستان في سهل ندوك ci Sahel Network TV عليكم ورحمة الله وبركاته di leen nuyu di leen ndokkeel bu baax a baax ci zahru ramadanul karim nga xam ne muy weeru màgg tabaarakallahu weeru rëy ca yàlla di ñaan yàlla yàlla na bu mu doon suñ mujju koor man mii di oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Guèye nekk fi ak suma xarit feggoo fi alxaaji isa Mbay nga xam ne tabaarakallahu bi koor gi tàmbalee ba léegi ñun ñoo nekk ak yéen fii di fàttaliwante ak yéen ndax wa dakir fa inna dikra tanfaul muminin yàlla ci boppam moo waxal boppam ci alquran ne del fàttali ndax fàttali dana jëriñ ki gëm kon yanuñ yàlla dimbale ba tabarakallahu in nafaati zikra hit say sakaru man yaxsa fekkee fàttali dana jëriñ mu ne dëgg-dëgg fàttali aman na nit jëlee ci ragal yàlla ñuy waxtaan ak yéen fii nag bi weeru koor yu tàmbali ba léegi ni ko alxaaji Isa waxee ci kër gi nga xam ne tabarakallahu muy këru tabarakallahu sunu sunu sunu sunu sunu kilifa nga xam ne muy borom kër gi di Aboubacar li ak soxna tabarakallahu ummu li ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax nuyu suñ man bii nga xam ne muy Will Ferris heure biñ tàmbalee ba léegi dëgg dëgg nag mu ngi wane ne daal tabarakallahu li ñuy def nim mu safee waa àdduna moom it noonu la ko safee alaaji saa wax nga ko ñu nuyu ñëpp rek mboolem ko ñu seetaan ndax it programme bi gars yi ñu ngi ko dee topp di ko seetaan bu baax a baax a baax a baax nga xam ne tabaarakalla waxtaan wuñ génn rek dana am kuma ma soppin wala am ku laaj ma ne ma waw fi mom ngëneel li nan la deme ak mom li lu ci yàlla wax li lu ci yonent bi wax masala yooyu tabaarakallaahu dana ci am yuma ci tontu loolu ma noy ci nak wa itali yeb di len wax rek ne tabaarakallaahu bu len dëñ di tayal bu len tayal muk yen ñi nga xam yen nga soppe di bege Cheikh Ahmad Tidiane Guèye nga xam ci sayyiduna Muhammad ci waxtanu diine ci waxtanu alquran man daal li ma leen di digal rek mooy online bii di sexeel Sahel Network TV soppraaj leen ko rek lu ñu dugal ci waxtaan rek incha allahu rabbi da ngeen ci jot tabaarakallahu ñu nekkoon ak yéen nag ci waxtaanu koor nga xam ne weeru koor moom tabaarakallahu weeru profito la weeru weeru bonus la ñuy wax bonus mooy loo def benn rek am fukk loolu mooy weeru koor nga xam ne tabaarakallahu weeru koor yàlla def ko indi mu doon weeru xeetu sayduna muhammad wéru koor dafa ñëw pour wéru ñi nga xam dañ sagganon ba melni man nga xam tabarakallah bakari bàkkaar yi bëri woon bëgg ñëw bakkar yu mu raxas ko ba mu set wécc motax bi nga xifé ñaka lek ñaka naan ba ngon jot nga dag julli sa timis mos sa lekk dem ci jakkaya ya dem ci jumaaya ya fas yéene pour lan muy jaamu yalla fofu ñu ngi ñaan yalla hit ci natu bi nga xamne tey moo dal waa adduna ba nga xam ne ñu koy tuddee coronavirus coronavirus bi lëmbe àdduna baarakallahu ba tax jàkk yépp ñu ne leen kàpp tëj leen tabaarakallahu nekk ci biir kër yi loolu dalul xel bon kon ci kattanu yàlla ak ci barke yunt yàlla Muhammad ci weeru koor wii nu nekk ñu ngi ñaan yàlla nag dëgg dëgg nag du wax pour gëm-gëm lu yàlla waaye du wax it pour bëgg ne nit ñi ne la yow ñeme nga wala nangam déedéet dafa am loo xam ne alxaaji Isa maanaam loolu dafa war a tiital képp kuy jullit ndax dañ gëm man lam yemut bi say fi maata bi xayri ku deewul ci jaasi da danga dee ci lu dul jaasi ku deewul ci coronavirus da nga dee ci leneen lu dul coronavirus te ñun lépp sa sëriñ ba sunu sëriñ ba Seex mm. Seydil Haaji Maalik Maodo dafa wax ne benn cers mooy benn seconde mm. nga naafa ba maanaam loo sa diggante digganteeg sa borom am loo ci war a def am lu manqué mm. nee na dëgg-dëgg sa dund yëpp sanku na looloo tax mu wax ne laqad daa umrun laqad daa umrun min husta min husta bi mil is sama ay yatta day ati nee na man Seex Seydi Haaji Malick de sama dund ci benn seconde laqad daa sànku na lu sànku alaaji Malick mu ne umrun dund dund gan mu ne dund goo xam ne min hustara ci biir dund ba man nga ci jënd loo xam ne dana fees mil as samaawaati wal ard lu fess asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar te yunt yalla muhammad ne seedeel len julit bi ak ngëm yàllam feeg mu ngi waxu di dem ci jakkay ya kon jakkay buñ ne ko rapu tej ku titul wala waxo ci kon da ngay wax lu la neex rek kon jakkay yiñ tej tabarakallah yalla nak ci barke koor gi mu yëkëtil ñu coronavirus bu lolu entrepreneurs la entrepreneurs bo parenthèse bo xamne ne ko Ti ci ñi sétane ñepp ñu ñaan yalla mu teggil ñu coronavirus tabaarakallaahu ñu dellu ci jàkka yi dellu ci jumaa yi ndax jumaa ñaari jumaa ku ko tardé rek sa àdduna sa àdduna mu ngi bëgg a mu ngi bëgg a perte ndax rasulillahi nee na ki ñàkk ba amul paasu makk julli ji jumaa mooy paasu màkkaam heure boo jullee jumaa am nga yool bu toll ni tabaarakallaahu ña dem màkka wër kaaba ga daw safaak marwa taxaw xarafa dem siyaare ji yonent bi yow mi dem jumaa am nga loolu kon nag kon dëgg dëgg nag nattu nag day ñëw sunnatu ñewé ñëwee nag tabaarakallaahu dëgg dëgg lañ man mooy fagaru waaye fagaru gi it tabaarakallaahu nañ ci boole yàlla boole ci Seyduna Muhammad waaye boole ci néegu yàlla yi ni ñuy defee ay yitte ay programme maanaam di def ay programme pour fexe nu école yi di ubbeek yeneen ak yeneen nañ ci sóoraale tamit daara alquran yi xale yi doon jànge ñu sóoraale ci lan jàkkee jàkk yi ñuy jaamoo yàlla ak jumaa yi farata la koor gii nag tabaarakallaahu yunt yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax wax joo xam dëgg-dëgg alxaaji Insa képp ku jullit war nga baqel ci wax jooju yonent yàlla Muhammad mu ne alkayisu ki muus mooy ki am xel ki nga xam ne mooy borom science mooy man daana nafsahu lima baadal mawti mooy koo xam ne dana sonn pour bakkanam li nga xam ne tabaarakallaahu dem na gannaaw dee mooy boo demee ba nga xam ne tey ndeysaan ñu ngi jaale suñ mbokk moomu nga xam ne mooy alxaaji kabir Touré nga xam ne tabaarakallahu rajulun min rijaalillahi tabaarakallahu nit ku baax la xoon ku yàlla baaxal la xoon nga xam ne tabaarakallahu daaw sax benn programme may dem Fass Thiaw mu yore téléphone mu nga Canada di déglu dafa dégloo déglu ba ci yàgg rek mu ne ma ci barke yonent bi waxal leen ma yootalal leen ma gàmmukat bi ne amal naa ko 5000 thousand xaw ma three yoo xam ne daf ma ko yónnee ware ngir sopp yonent yàlla Muhammad seen waxtaanu koor nag tey tabaarakallaahu ñu ngi tolloo woon ni ko alxaaji esa waxe ndax moom kuy topp waxtaan wi la nga xam ne tabaarakallaahu ñu ngi tolloo gi yéen ci naafila yi mooy naafila nag suñ ko waxee mooy ndollantu ndollantu xam nga luy ndollantu mooy bonus bi ak maanaam esa farata rek loolu moom farata la boo ko defut am nga bàkkaar mooy farata mooy lan julli ji sa farata mooy sa julli waxtu yu juróom wala nga woor weeru koor loolu farata la génnee asaka farata la aj màkka boo amee paas farata la sahadatu an laa ilaha illallah farata la léegi nag yi nga xam ne mooy nawaafil yàlla moo waxal boppam ne jàmm bi du dëñ di ma jege-jegelu ci nawaafilul xayraat du dëñ du dëñ jege-jegelu di ma di def yenn yoo xam ne santuma ko ko waaye yëg ne ne lu baax la nee na ba ma jegeel ko tabaarakallaahu sama bopp ba mu doon koo xam ne jaam boo xam ne noppam suma nopp la man yàlla bëtam suma bët la man yàlla biiram suma biir la man yàlla tànkam sama tànk la man yàlla looloo tax jaam bi dana dem ba àgg ci yàlla foo xam ne su waxee yàlla wax inna lillahi ibadan isa aradu aradu kon yan yàlla boole ci ñun kooku nawafilul xayraat yi ñu toll ci weeru koor yi moo koy joxe ñu tolloo nag yéen nag ci fukk ak juróom-ñaar ba fukk ak juróom-ñett waaye lan lañu waxoon ci fukk ak juróom-ñaar yow mi nga xam ne fukki fan yi ak juróom-ñaar naafila mooy julli nga sa farata ba nafila bo nafila ñune yonti bi yonti bi salaa salaam ñu ne boo naafila jox nañ la yool bu toll ni anbiya u yi ak mursalina yi moy 124000 sen tiyabo sen four yool yàlla jox na la yow mi nafila ba fukki fani ak juroom ñet fukki fani ak juroom ñet moy laylatu samina xasara ñune nada naadaa malakun يا عباد الله يا عبد الله يا جامب يلا إن الله رضي عنك رضي عنك ووالديك فوف لن يمون كبارك الله هنا يوم إنها بلدي فك فاني أدرم نيت ملاك موي ووتي ملاك مو قاني إيه يو جامب يلا يا عسام باي يا سيحتي جان يا ويل فريس يا أبو بكر باكيلي يا صحنا أمو باكيلي yow jaam bi yow yàlla nee na yàlla nee na ci boppam gërëm na la gërëm na sa ñaari wayjur gërëm na la gërëm na sa ñaari wayjur kon tabaarakallaahu dafa mel ni waxtoom ñuy bëgg a dab nga xam ne tabaarakallaahu ñu jox alxaaji am na programme bi nag ñi nga xam ne tabaarakallaahu am nañ yéene waaw jërëjëf sëriñ Cheikh comme ni nga ko waxee rek xam naa ne buñ delsee nga gën a yaatal waaye nag ñu ngi gërëm Modou Touré Dabo mi nga xam ne moo nekk euh, Vision Development Fund di jaami yàlla boo xam ne lu mu am jox ko jaam ñi koor gi rek fa tabaarakallaahu def na ci lu am solo te wax nañ ma ne lu ëpp ñaar fukki at mu ngi koo joxe di ko di ekkati ay ndimbal ay sukur ay ceeb di ci boole dara di ko jox jaami yàlla yi pour ñu suturaa seen bopp ci koor gi te wax dëgg yàlla programme bi gis na ci boppam kon ñu ngi koo gërëm di ko santa waaye di nuyu nag Amadou Djigo Jigos Construction. wax dëgg yàlla moom it mu ngi seetaan programme bi di ko rafetlu di ruf di nuyu Sirif Tambédou mi nga xam ne ñoom ñoo amee Banjul Travel Agency ba pare nag muy goro ci kër gi. ba tabaarakallaahu ñii ñëpp ñu ngi ñu ngi def seen seen wàll ci programme bi. xam naa dinañ gën a yaatal seeneen programme bu defee rek ñu bàyyi la nga tàggoo baarakallaahu tàggoo bu dul tàggoo ngeen teg seen baaroom rek fi ma yemandi ñu ñëw pour continuer waaye ñu nga noonu ñu gërëm leen bu baax sant leen tabaarakallaahu te mooy ni mu ko waxee rek wax dëgg yàlla tey rek balaa maa ngi yër ci téere benn téere hmm. benn kër gu rafet ci aljana ñeneen ci di ko xëccoo hmm. borom xam-xam ak jihaadkat bi ak ki nga xam ne tabaarakallaahu mooy borom alal hmm. ak ki nga xam ne tabaarakallaahu mooy ki nga xam ne moo doon euh, xeexkat mooy jihaadkat bi ak ki nga xam ne mooy borom alal bi ak ki nga xam ne tabaarakallaahu mooy boroom xam-xam bi ñii nag bi ñu dajee ci néeg bi di xëccoo di werante ak tabaarakallaahu waaye bi yàlla àttee ba mu àttee. Hmm. dafa mujj dem ci borom alal bi moo ko moom. est-ce que loolu yëpp nag dinañ ci ñëw ci yàttal nga xam ne alal su duggee fa mu war a dugg. Hmm. te dëgg dëgg nag gis nga yàlla. Hmm. amul dara yàlla amul fenn. xam nga lan la am. jaamam yi jaamam yi. nga jaamam yi ku leen suturaal. ku suturaal jaamam yi wala nga fexe ba génnee njàqare ci jaamam yi yàlla nee na bis bi nga xam ne loxo yëggewul fa loxo mënul fa dara man yàlla maa fa man dara bis boobu man maa lay fegal njàqare yow. mooy ce que muy tabaarakala ni nga ko waxee alxaaji Moodu. Mm-hmm. Tura Daago waaw xam ne tabaarakala ci jëf yi rafet yu yàlla yàlla taxawu ko. allahumma amiin mel ni ah, Chérif Tambidou. moom bokk la. <laughs> waaw Amadou Djigo moom ñoo bokk ca xadara ba. waaw waaw alxaaji Amadou Djigo ñoom ñëpp rek. Mm-hmm. ñu leen di nuyu. di leen ñaanal yàlla seen doole ak seen man-man ba ni ñu koy defee ci jaamu yàlla yëpp yàlla yokk ko tabarkeel ko di leen ñaanal yàlla ñu fekkee koor yu bëri waaye duñ dëj rek te nuyu ñu mboolem ku ñuy seetaan ñu nekk Italie ñu nekk Espagne ñu nekk Amérique Norvège ñëpp maa ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa kon donc ba beneen yoon incha allahu rabbi